ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi ñëwaat ak yéen ci ngëneelu suñu boroom di dajawaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind bu aju ci suñuy diine mu aju ci wàllu li ñuy tuddee fiq rasul sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin yàlla ku mu bëgg ci yow yiw dalay xamal sa diine diine jooju nag daa taxaw ci juróomi ponk ponk yooyu bokk na ca lii di aj makka ab jullit war a koo xam même bu dee yàlla yombulu ko mooyo yu mu fa yóbbu war naa xam lan mooy aj makka lum ko gën a xam xolam di ca gën a aju ca suñu boroom subhanahu wa taala mboolem santaane yi mu sant ay jaamam ña nga xam ne dañ koo man def ko sellal ko dana leen nangul waaye mboolem ñi nga xam ni dañ koo bëggoon ca mu dëggu seen xol yàlla dana leen may yool ba looloo tax ba jullit bul wax mukk ne njàng mu aj màkka moom itteelu ma déedéet danga koy jàng ngir nga xam ko loolee gën a suuxat ca feel sa xol rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni képp ku ñaan yàlla dee ci yoonu yàlla nga bokk ci ñi shahid ca muy dëggu sa xol ëllëg yàlla boole laak ñi dee woon ci toolu jihaad même bu doon dangaa dee sa kaw lal loolu nag la koy may jullit bi mooy moo xam lan mooy daraja ya nekk ca jihaad boobee daloon nañu aj makka jël ci ay bind ba tey ñu yegsi ci li ñuy tuddee almadatu sadisa ca mooy fi rukni sadis ca ponk bu ñetteel ba ca mooy aso yi la nga xamee ne nii aso yu mooy daw déggante safa ak marwa lu jëkk xamal ne am na ñaari ponk yu jiitu aj màkka ñeenti ponk la ponk mooy lan mooy loo xam ne bu ca benn manqué mbir ma day yàqu ponk bu jëkk bi mooy fa nga demee ba fa ngay commencé aj ga moom la ñuy tuddee miiqaat nga daal di yéene daal di armal bu dee góor a day summeeku daal di woddu lambaayu yéene na nag yàlla maa ngi jëm ci aj loolu la ñuy tuddee armal su dee jigéen na moom ay yërëm yam yoroon lay yor daa di yéen a armal ñaareelu ponk ba mooy wër kaaba ga loolu waxoon nañ ko ci dar si passé ñetteelu ponk bi moom la ñuy jël tey donte ne ne jëlul nañ bind ya ca jëkkoon waaye mënees na koo baamu kon ñi ngi toll almadatu sadisa fi rukni sadis te mooy asax su dee da ngay jël sa téere ñu jàngaatal la mu ne assayu huwa almashyu bayna alsafa walmarwa zahab zahaban wa jiatan bi niyati taabud wa huwa ruknun ruknu alxajji wal umra mu ne li nga xam ne moom mooy daw safa ak marwa mooy dox bi ngay dox diggante safa muy benn tund bu nekk ca wetu kaaba ga ak marwa di beneen tund bu nekk ca wetu kaaba ga seen diggante nekk à peu près ay quatre cent et quelques mètres képp kuy aj wala omra dox diggante boobu juróom-ñaari yoon loolee dafa nekk ca ponk ya li qawlihi taala inna safa wal marwata min sha'airillah safa ak marwa ci mandarga yàlla yi la bokk wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam isaw fa inna allaha kataba alaykum sa'ya yonent bi mu ne daw leen safa ak marwa yàlla bind ci yéen loolu wa lahu shurut wa sunan wa aadaab mu ne am na ay charte charte mooy loo xam ne boo ko deful mbir mi day yàqu mu am ay sunan sunna mooy loo xam ne sib nañ nga bàyyi ko soo ko defee am tuyaaba ju rëy soo ko deful doom bakkaar aadaab mooy teggin comportement ba ngay àndal ci jamono bi ngay def charte yi ak sunna yi lii jàngoon nañ ko mu lañ mujjoon jàngi dimanche passé ca lañu waxoon it ne mi ngi noonu suñu borom bi màggal kaaba gi moo màggal ñaari tund yooyu di safa ak marwa sant jullit ñi ñu dem di ko daw di taxaw ci tund yee di ñaan suñuy jël bind bu beesu tey bi mu ne shurutu sa'yi wa hiya lan mooy charte yi nga xam ni mooy daje ci ki nga xam ne daa dem aj makka ngiree loole nga xam ne moom mooy tawaafam boobu ci diggante safa ak marwa doon lu wér mu indi ci la nga xam ne ni moom mooy juróom ñaar bi ci jëkk mooy an niya li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama al amalu bi niyaat jëf yépp day mi ngi tege ci yéene fa kaana la budd min niyati taabud bi sa'yi taatan lillahi wa imtisaalan li amri li jiitu mooy yéene la nga xam ne mooy daw safa ak marwa xale yi nekk ci terrain football bi daan def lu ëpp fukki yoon daw googee waaye kon lan la yàlla di considéré ki nga xam ne mi ngi def loolu yéene jëfandikoo ni lii kat yàlla ko digle looloo tax mu koy def na ko yàlla santaane di ko def ci lim ba yàlla santaane ñu def ko mi ngi noonu ñaareel ba a tartibu bi niyati a tartibu baynahu wa bayna tawaaf bi an yuqaddima tawaaf ala sa'i fokk waa ji daw safa ak marwa da koy teg ci gannaaw wër kaaba gi mi ngi noonu boo wëree kaaba gi ba pare ca ngay doog a dem def daw safa ak marwa ñetteel bi al mawalaatu bayna ashwaati mooy ñu sësale ca la nga xam ne mooy tuur ya nga cay def غير أن الفصل الفصل اليسير لا يضر ولا سيما إذا كان لضرورة mooy kiy daw Safa ak Marwa doon na day ñëw def ñetti aller retour dem naan day nopp naani ndoxam wala day def leneen la maadaama dugg nga ci da nga koo war a tegale amma nag bu dee loo xam ne teqalee ga yàggul loolu du lor ci daw ba sonn wala dox ba sonn mu toog noppalu ba amaat kattan loolee dara nekku ci ñeenteel bi ikmaalul adadi sabaata ashwaat mooy nga matal juróom ñaari aller retour yi aller un la retour deux ba muy juróom ñaar falaw naqasa shawtun aw baadu shawt lam yujzi'u idil xaq is xaqiqatuhu mutawaqifa ala tamaami ashwaatihi ki doon daw safa ak marwa daw ñaar wala ñett loolee du ko doy fokk mu matal juróom ñaar yépp looloo tax aj makka la tuuti kattan mi ngi noonu donte ne ni liñ ko waxe woon ci dars yi passé am na ñoo xam ne ci seen ñàkk xam dañuy jaawale safa ak marwa ak kaaba gi kaaba gi nga xam ne dañ koo wër wër ñoom it ñu jàpp ne safa ak marwa da ngay jóge safa dem marwa dellu si muy un loolu mbokk da ngay gis benn daw safa ak marwa quatorze fois ca du noonu juróom-ñaari yoon rek la war a doon benn bi mooy ba nga jógee fii dem fële bokk na ci loolu ba tey non ngi nekkoon ci waaw jur waaw ñi ngi nekkoon juróomeel bi naam mu ne wa juróomeel bi mooy wuquuhu ba'da tawaafi saxiix mooy fokk mu nekk gannaaw wër goo xam ne nii en wër la goo xam ne nii gu wér la sawaun kaana tawaafu waajiban aw sunna na doon tawaaf ba nga doon tawaaf kaaba ga day tawaaf boo xam ne bu war la wala muy tawaafu sunna gayra an al ula an yakuna ba'da tawaafi waajib doonte ne la gën a yey mu nekk gannaaw tawaafu waajib ka tawaafi al qudum mu mel ni tawaafu ba ngay doog a ñëw ci kaaba gi aw ruknin ka tawaafi al ifaada wala boog mu nekk ponk mu mel ni tawaaf ba ngay wëre kaaba ga bi sa tabaski ba ca mbokk kon safa ak marwa ki yegg makka rek su ñëwee wër kaaba gi ci wërim gu jëkk dafa war a daw dem safa ak marwa su ko defal it bi su fukkeel ba su ñëwee su ko wërul woon mu dem wër ko amma bu dee defoo loolu defoo ko ci ñaari bis yooyu heure boo ñëwaatee bëgg a jagleel safa ak marwa ak wër dañ naan la demal wër kaaba gi juróom-ñaari yoon ba pare doog a dem def safa ak marwa ndax safa ak marwa day nekk gannaaw wër gañu wër kaa wër gañuy wër kaaba ga kon juróomi mbir yooyu lay wax ne moom munta ñàkk ca la nga xam ne mooy daw diggante safa ak marwa amma nag sunna yi ci rot sunna yi ci rot sunna bi ci jëkk mooy alxababu wa hiya suratu lmashyi bayna almiilayn alaxdarayn almawduayn ala xaafati waadi alqadim mooy nga daal di ñukk te mooy gaawal ab dox diggante ñaari am na ay poto yoo xam ne dañ koo def muy ay signe yu yu verte yu nekk ci diggante Safa ak Marwa boo demee ba fi ñuy tuddee xuru Safa ak Marwa boo fee boo fa yegsee da ngay daw dañ ko mandargal ci ay lampe yu verte ku ñëw foofu da ngay daw daw boobu du daw boo xamee ne nii dañ koy kii waaye daal da ngay xaw a ñukku gaawal lool sa waaxu alladi xababa fihi haajir umm ismail alayhim assalaam ndax li waraloon loolu mooy diggante boobu ñu màndargaal haajara ba mu fa ñëwee daf doon daw te loolu di ci borom xam-xam yi wax mooy foofu la bàyyi woon ismail daal di dem safa ngiree xool ndax dana am ku mu ñaan ndox ci ay jëgg juy jàll gisul kenn mu wàcc bëgg a dem marwa bi mu yegsee ba foofu dégg ismaïla di jooy mu daal di daw ngir bañ a dégg jooy yi dem marwa taxaw lu yàgg gisul kenn mu dellu safa ba def ko juróom-ñaari yoon te la ko suñu borom yàlla doog a xettilee mu daal di gis jibril alayhi salaam daal di wàcc mi ngi noonu daal di këdd suuf ak tànkam mu gis ndox mi commencé naan bëx bëx bëx bëx di génn ak génn gu fort bi mu demee ba nara jéggi dayoo sax ñu ne haajara moo ñëw ne ko zam zam zam zam ay ndox mi dalal ndox mi dalal ñu ne loolu mooy indi zam zam am na riwaaya buy wax ne yal na yàlla yërëm sunu yaay haajara su bàyyi woon zam-zam dex lay doon dex lay doon waaye daanaka dex intérieur la xoolal bañ dalee aj makka ba léegi ak ñiy dem makka nga xam ne léeg-léeg dina jege presque xanaa ay 3 millions ku nekk tànk yóbbu sa kër te amul benn ana buñ mës a dem ñu ne teen bi jeex na loolee kon mbir la bu yéeme bokk na luñ ciy wax débit bi ko gars yi di pompe nga xam ne ay combien de mètres cubes lay génne par minute buñ ko pompé bala ñoo toog cinq minutes teen bi toll comme fa mu tolloon ñu ngi noonu te ñëpp xam nañ ne màkk du place su ndox kon loolu mbiri yàlla la moo tax nit ki aji màkk bu yegsee muy dekkal sunna boobu nga xam ne haajara doon na ko def wa huwa sunnatun li rijal alqadirina duna dafati nisa duna dafati wa nisa mu ne nag ñëw ci diggante boobu di daw góor ñi am kattan lañ ko sant amma góor ñi néew doole wala jigéen ñi kenn santu leen loolu su dee ñaareelu sunna bi mi ngi noonu alwuquf ala safa wal marwa li du'a'i fawqahuma sopp nañ ki dem kaw safa mu fexe ba yéeg ci tund bi taxaw jublu kaaba gi ñaan wàcc dem marwa yéeg ci tund bi jublu kaaba gi ñaan wàcc heure bu fa yeggee def noonu ca muy addu ñetteel bi addu'a ala kulli min safa wal marwa fi kulli shawtin min al ashwaati sab'a ca mooy loolu rek bépp yoon ci juróom-ñaari yoon yi taxawal nga ñaan la nga xam ne mooy sa soxla ñeenteelu sunna bi qawlu allahu akbar salaasan inda ruqyi ala kulli min safa wal marwa fi kulli shawt mooy sunnaal nañu ki yéeg safa dañ koy tuddee ay tund rek waaye ay dafa xaw a yëkkatiku noonu tuuti rek boo ñëwee di yéeg nga daal di ne allahu akbar ñetti yoon mi ngi noonu ci bépp yoon wa kaza qawlu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda kon ñaan gi sunnaal nañ ko ki aj makka di ko ñaan diggante safa ak marwa waaye nag nekkul ni ku ko deful dara dala cay war li mu wax ci la ilaha illallah wahdu la sharika lahu jàpp naa jullit yëpp war nañ ko xam te yeewul ñu koy jaamu moom rek amul benn bokkaale lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir moo moom nguur gépp moo moom cant yëpp mooy ki am kàttan ci lu mu mën a doon la ilaha illallah wahda kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul yàlla moom kese sadaqa waada dëggal na lam diggante woon ak yonentam wa nasara abda dimbali na ab yonentam wa hazama al ahzaba waxda dàq na kuréel ya bëggoon a fay lislaam moom kese kon loolu nekk na ñaan goo xam ne dañ koy ñaan foofu juróomeelu sunna bi muwaalaatu baynahu wa bayna tawaaf mooy ñu daal di koy lënkale digganteem ak tawaaf ba bi xaysu bi xays laa yafsilu baynahuma bi duni uzrin shar'i ci loo xam ne du teqalee diggante fi mu wëree kaaba gi ak fi mu dawa safa ak marwa xanaa lu dul ci loo xam ne ngant la mu mel ni mu demoon di soxla wanag wa ak yu demee noonu amma aadaabu sa'i aadaab niñ ko waxe sànq mooy nit ki bi ngay def mbir mi ban comportement ngay àndal bi ci jëkk alxuruj ilayhi min baabi safa taaliyan qawlullahi taala bokk na lu ñu sopp kiy dem safa ak marwa mu jëkke ca bunt ba jëm ca safa boole ko jàng la suñu borom di wax ni inna safa wal marwata min sha'airillah lii di safa ak marwa day ci màndarga yàlla yi la bokk faman xajja al bayta wa itamara koo xam ne da ngaa aji wala nga umra fala junaha alayhi an yatawafa bihima kooku de amul benn ngant ci wër diggante safa ak marwa wa man tatawwa xayran fa fa inna allaha shakirun alim ku coobarewu aw yiw nekk yàlla moom aji kuy sant la aji kuy xam la aaya boobu su dee mën nga ko sopp nañu nga jàng ko bala nga daw safa ak marwa bokk na lu ñu sopp ba tey an yakuna saa'i mutatahira mooy kay daw safa ak marwa ànd ak njàpp mu safaanoo kay wër kaaba ga kay wër kaaba ga moom dañ ko sant mu ànd ak njàpp ndax wër kaaba gi moog jullee yem amma daw safa ak marwa ànd ak njàpp du ca charte waaye nag sopp nañ ko ñetteel bi an yasa machian in qadara ala zalika biduni mashaqa ñetteelu sunna bi ki daw safa ak marwa mooy mu dox su ko mënee ci lu àndul ak benn coono amma bu dee ne mënu ko jamono yonent bi dañ daan war ci gileem yi di dem jamono ji ñu mujj it alhamdulilah yàlla ñu def ay chaise roulante yoo xam ne da ngay fay ñu dawal la ko mi ngi noonu léegi sax am nañu ay auto électrique yoo xam ne nii moo gën a noppale yooyu yëpp yoo xam ne mën nga caa dugg wër sa safa ak marwa yarhamukallah doonte ne ni bu dee mën ngaa dox ak sa tànk moom dox ak sa tànk mooy la gën ñeenteelu sunna bi an yuksira min zikri والدعاء وأن يشتغل وأن يشتغل بهما دون غيرهما mooy kiy daw safa ak marwa mu ittewoo tudd yàlla ak ñaan yàlla ba ñu ittewoo leneen lu dul loolu ba ñu ittewoo leneen lu dul loolu mi ngi noonu juróomeel bi mën ay yaxudda basaruhu anil maxaarim mooy mu daal di sajji bëtam ci lu xool lu xaraam nga xam ngeen ne foofu góor ak jigéen ñëppay ànd di ko daw mi ngi noonu ca jigéen ñi ci acc dañoo war a génn sax seen kanam même ñi nga xam ne dañuy muur seeni kanam mi ngi noonu su ko defee wa an yakuffa lisaanuhu anil maasim bu fexe ba fekk làmmiñam ci wax loo xam ne wax ju ñaaw la juróom benneel bi an laa yuziya ahadan min alsaacina aw gayrihim min almaarati bi ay aza ci daw safa ak marwa lu fexe ba bañ a lor kenn da doon ñiy daw safa ak marwa la wala ña nga xam ne nii dawuñu ko ci benn bépp façon lor qawlin aw fiil la doon wax la wala jëf te mbokk foofu léeg-léeg day fees feesaay boo xam ni képp ku fa nekk ca àndoo ak sa sago jàppante dalay yomb lool mu ngi noonu juróom-ñaareel bi istihdaaruhu bi nafsihi azilla wa faqri wa faqruhu wa xaajatuhu ila allahi taala fi hidaayati qalbi mooy mu daal di teewal bakkanam la nga xam ni mooy suufeem ak aajoom ba nga xam ne aajo woo na ko jëm ci yàlla mooy ñàkk gam ñàkkal ba foofu aajo woo gam aajo jëm ci yàlla ci yàlla jubal la nga xam ne mooy ab xolam wa taskiyati nafsihi wa islaahi xaali ajin ngiree waay daw googee muy daw suñu borom yàlla sellal ci bakkanam yéwénal ci la nga xamee ne nii moom mooy ay mbiram loolu mbokk moom mooy li ñuy tuddee daw safa ak marwa teggin yooyu la ca wax nga xam ne mooy ñetteelu ponk ci la nga xam ne mooy ponk aj yi incha allah bu dee ne ñu yoroon téere yi amuñu ci ay baat yu ñu comprendre wala leen luñ ci bëgg a laaj wala ñu dem ci beneen bunt bi loolu tamit ñu koy bàyyi xel foo xam ne day am léeg-léeg ay passage yoo comprendreul loolee nga bàyyi ci xel dana la dimbali ngir ëllëg naam bismillah naam wa ala kulli xaal ndax suñu borom lim ne kii aj makka day du am ngant ci mu dem def safa ak marwa ndax kon ki ko wóorul moom day day am da ku ko kum neex mën ngaa dem ca doo wër safa ak marwa na am bu doon diine alxuraan rek lañ koy jëfandikoo day aay boobu mënees na caa sukkandiku ne ki daw safa ak marwa it ku mel noonu ki dawul safa ak marwa dara waru ko ndax suñu borom dane ki aji màkka amul ngant ci mu dem def ko kon day mel ni nekkul farata waaye nag dañuy xam ne diine kenn du ko sukkandikoo ci ab aaya wala lu mu mën a doon diine dañ koy sukkandikoo ci doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya boobu la toxal mu wàcc wax nañ ko ci darsu dimanche bi passé mooy waa màkka dañ faa tegoon seeni xërëm xërëm yooyu cosaan bañ ci wax dañ ne ay nit lañu yàlla soppee ay xeer ñu tegoon fa seeni xërëm suñu dawee safa ñëw raay xërëm bi daw marwa ñëw raay xërëm bi léegi nag jullit ñi ñoom bi ñu duggee ci lislaam dañoo jàpp ne kon safa ak marwa ci aaday jaahiliye la bokkul ci lislaam ci dara suñu borom nag ne déedéet ci daw safa ak marwa amul ngànt ngir daw ko ca mooy le fait que yéeféer defoon fa seeni xërëm loolu du tax yéen jullit ñi mu dàq jaamu yàlla ga fa yàlla def kon daw leen ngeen def safa ak marwa loolu moo tax ba ki aj makka fokk day daw safa ak marwa moo bokk ci ñeenti ponk yi nga xam ni bu ci manki sa aj day yàqu wallahu subhanahu wa taala aalam non non waaw kon ñu jël ñeenteelu ponk bi déet mi ngi noonu waaw ñeenteelu ponk bi te mooy almadatu sabia fi rukni radia ñeenteelu ponk ci aj makka wa huwa alwuquf bi arafa mooy dem taxaw arafa alwuquf bi arafa huwa ruknu raabiu min arkaani alxaj dem taxaw ci arafa day mooy ñeenteelu ponk ci ponk aj yi bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam alxajju arafa yonent bi nee na aj aj daal buñ koy wax arafa tax wa xaqiqatuhu alxuduuru bilmakaani almusamma bi arafa te la nga xam ne mooy jubluwaayam di dëgg-dëgg lañ ca farataal mooy nga teew place ba ba ñu tudd arafa lahzatan fa aksar bi niyati alwuqufi min baadi zuhri yowma taasi zilhijja ca mooy gannaaw tisbaaru juróom-ñeenteelu fan ci zilhijja mu fekk la place bu ñuy tudde arafa nga teew fa yéene teew ci place bi même bu doon trois minutes nga fa am loolu day dem ila fajaril yawmi al ashir minhu ba ba fajaru fukkeelu fan ba loolu moom mooy arafat mbokk kon taxaw arafat da ngay gis ne ñu bëri dañooy jàpp ne ña fa dem dañuy taxaw toute la journée na am loolu ci ngëneel yi la bokk ngëneel yi la bokk mooy arafaat taxawaayam mi ngi commencé gannaaw tisbaar gannaaw tisbaar doonte ni sunnaal nañu avant tisbaar fekk la fa nga boole tisbaar ak takkusaan julli ko gannaaw ba nag nga yéene ni yaa ngi taxaw arafa taxaw boobi mi ngi commencé gannaaw tisbaar ba baa fajar di jot ki nga xam ne dafa demoon makka amul ay ngant dikkal ko mënul dem arafa waaye yàlla dogal na am na pexe ba yegg arafat avant fajar di jot su juróom-ñeenteel ba yegg na arafat avant fajar di jot ko mel noonu dañ naan ajam baax na te mooy taxaw na arafa amma fu fajar jote moom déwé na ci rek mu ngi noonu looloo tax muy ponk bi gën a am solo ndax bu dee tawaaf beeg fax yi beeg yooyu yëpp moom daanaka bisu aj yëpp heure boo ko ci defee baax na amma arafat moom benn bis la bu la rëccee moom déwénati rasul salaa sallam doon wax ne aj daal mooy arafat di place boo xam ne place bu yaatu la mi ngi noonu foofa taxaw baax na wante ne am na fu yonente bi alayhi salaam taxawoon dana ko wax ci kanam waaye foofa taxaw baax na mi ngi noonu mu ne walahu waajibatun wa sunan wa aadab yutimmu biha wa hiya moom it comme jaamu yàlla yëpp day am waajibaat waajib mooy loo xam ni heure boo ko deful dafay am loo cay joxe ci njot mooy gàtt booy rey wala lu dem noonu boo amul nga woor ñetti fan ci at gi ak juróom-ñaar boo nibbee sunna niñ leen ko waxee mooy loo xam ne boo ko defee am tuyaaba soo ko deful doo ci am bàkkaar amma adab bi mooy melokaan yi ngay àndal jamono ba ngay def loo lan mooy waajib ci ki aj makka ci di di arafat mu indi ci juróom benn mbir bi jëkk alxuduuru bi arafa yowma taasi zilxijja bada zawal ila gurubi shams mooy bisu arafat nga daal di dem arafa après tisbaar fekk la fa nga toog fa ba jant bi so ki nga xam ne dafa dem arafa amul droit génn tant que jant bi sowul léegi sax bu dee ñi nga xam ne ñooy organiser at ji daanaka duñu permettre nit ñi dem soo jant bi sowee rek ki nga xam ne moo jiite at ji nga xam ne moo doon jiite tisbaar takkusaan mooy jëkk a génn gaa yi topp ci muy wañe ne kon arafat jeex na ñaareel bi almabitu bi muzdalifa bada al ifada min arafat laylata al ashir laylata ashir zilhijja bokk na ci waajibi arafat soo jógee arafa nga wàcc fi ñuy tuddee muzdalifa ñu mel ne rek tey jii buñ ne woon tey jii ñu ne arafat kat moom mooy masalan lu mel ne ay jàmm gën ñu ne Muzdalifa moom mooy Pikine Kaaba gi mi ngi Parcelles kon yow mi ngi jógee Arafat Muzdalifa ngay dem fanaan foofu loolu dafa bokk ci ay waajiba wante lu ëpp ci nit ñi léegi presque duñ ko def mi ngi noonu ñetteel bi mooy ram yu jam jamratul aqaba yowma nahar bokk ñu lu lënkoog Arafat ba tey gisu fukkeel bi ba nga jógee arafat fanaan muzdalifa nga xëy jubal directement ca la nga xam ne mooy jamra ya sànni ko jamra ya sànni ko allahuma ñi amoon ngant ci ak magi yonent bi alayhi salaam daan na leen may ñoom ñu bañ a fanaan muzdalifa dem sànni jamra ba nga xam ne mooy benn jamra ba muy tudde ko jamratul aqaba ñeenteelu waajib bi alxalq aw taqsir baad ramyi jamra jamrat al aqaba yowm nahr mooy ki jóge makka ki jóge arafat fanaan na muzdalifa xëy suba dem sànni jamra ku mel noonu nag bu paree day watu wala mu wàññi karawam day watu wala mu wàññi karawam su dee jigéen a dañ koy sant mu laal tuuti rek ci karawam ay jigéen moom du watu bu dee góor a watu moo gën ci wàññi sa karaw juróomeel bi almabitu bi mina salaasa layaal bokk na ci waajibaat yu lënkoog arafat te mooy ponk bu mujj boobee ci aj mooy nga fanaan mina juróom ñett ñetti guddi wa hiya layaali alhaadi achar wa saani achar wa saalis achar mooy nga daal di fanaan onzième guddi ba douzième ba ak treizième ba aw laylatayni liman ajala wa huma laylata laylatul haadi achar wa saani achar kii nga xam ne dafa jóge arafa mooy bisu juróom-ñeenteel ci guddi ga dañuy fanaan muzdalifa suñu xëyee mooy bisu fukkeelu ci tabaski dañu dem sànni jamra yi suñu sànnee jamra yi daa di watu summi suñuy armal yépp su boobaa da ngay gis ne li ëppoon cat gi dem na mu des nag wër ga ngay wër kaaba ga dana ñëw ci kanam gannaaw ba da nga war a fanaan mina lu mu néew néew ñaari fan lu mu néew néew ñaari fan loolu mooy gannaaw arafa doonte ne sunnal nañu guddi gi jiitu arafat nga fanaan ko mina waaye loolu bu la neexee doo ko def loo neexoon nga jóge sa hôtel ca makka dem directement arafa waaye sunnal nañu mooy nga fanaan fa nga xam ne mooy mina jóge mina doo ko dem arafa juróom benneelu ponk bi ramyul jamarat ba'da zawal mooy sànni jamra yi gannaaw ba zawal jotee mooy jamono bi tisbaar di jot kulle yawmin min ayaami tashriq salaasa aw awil isnayn ca mooy ñetti fan yi ñu tudde ayaamu tashriq nga xam ne moom mooy onzième bi douzième bi ak treizième bi yépp wala boog nga def ko ñaari fan dem ni bi mu ne tan bi tegtal bi mi ngi lay bàyyiloo xel ajillatu hadihi alwajibat amaluhu sallallahu alayhi wa sallam lan mooy tegtalu waajib gi yëpp mooy jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qad qaal li taaxudu anni manasikakum lii def naa ko ngir ngeen jële ci man seen jaami yàlla yi di aj wa qaal xajju kama raaytumi raaytumuni uxajj e waay aj leen comme ni ngeen ma gise may aj wa qaala alayhi salaatu wassalaam qifu ala mashaa'irikum fa innakum ala irsi ala irsin min irsi abikum ibrahim taxaw leen ci seen mandarga yi yéen a ngi nekk ci ndono goo xam ne ma nga nekkoon ndono ca seen bàyyi ibrahima alayhi salaatu wassalaam loolu kon bokk dañuy gis ne moom mooy waajib ya nga xam ne bu ci manki fokk dafa am luñ ko jotoo ci gàtt bu ñuy rey su ko defee su dee dañ ñëw ci sunna yi mu ne as sunnan hiya al xuruj ila mina yawma tarwiya bokk na ci sun sunna lii nga xam ne moom mooy yawma tarwiya wa huwa saminul xijja suñ demee ba tey la juróom-ñetti fan ci zulhijja nga daal di génn dem fanaani mina wal mabitu biha laylata taasi nga fanaan fa ca guddig juróom-ñeenteelu fan ba bu ñee suba la juróom-ñeent wa adamul xuruj minha illa baada tului shams boo fa fanaanee it nga bañ faa génn lu dul jant ba daa fenk li salaati xamsi salawaatin biha ngiree nga am mina juróomi julli avant ak makka di commencé avant arafat di commencé ca mooy tisbaar takkusaan timis gee fajar ñaareelu sunna bi wujuduhu ba'da zawal bi namira mooy bu zawal jotee fekk la place bu bu ñuy wax namira nga xam ne tabax nañ fa léegi jàkk bu mag wa salaatu zuhr wal asr qasran nga boole julli tisbaar ak takkusaan gàttal ko wa jamaan ak boole ko ma al imam ànd ak imam ba ñetteel bi ityaanuhu li mawqif arafat mooy nga dem nag ca place arafat waaw mooy ci jàkka ja la ko féete kaw ne la rek baada adaihi salatu zuhr wal asr ma al imam wal istimrar bil wuquf zakiran daiyan hatta ghurubu shams soo demee ci place arafat nga taxaw nag di ñaan di zikr ba ba jant bi so taxawaay boobu mbokk mooy teewaay mooy teewaay donte ne a rasul sallallahu alayhi wa sallam moom aj gam ajoon ba mu demee ànd ak giléemam nga taxaw ca montagne ba diggante fi mu julee tisbaar ak takkusaan boole ko la yonent bi dem ca wetu montagne ba yëkkati loxoom yi di ñaan di ñaan ba jant bi so loo xam ne lu mu néew néew dana def plus de deux heures de temps wala trois heures de temps sax a rasul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko taxaw di ñaan sallallahu alayhi wa sallam waaye bu la neexul sax tëdd nelaw maadaama teewaay bi moo ci am solo ñeenteel bi mooy taxiru salatul maghrib illa an yanzila bi jam'i muzdalifa mooy arafaat fokk nga toog fa ba timis fekk la fa waaye sunna bi mooy doo fa julee timis da nga koy bàyyi yéexe ko ba dégg muzdalifa fa yusallil bil maghrib wal isha biha jam'a taxir nga boole julli tisbaar julli julli géey ak fajar julli gi yéexe ko ca ah nga boole timis ak géey julli gi yéexe ko tant que ragaloo fajar jot tant que ragaloo fajar jot même bu doon da ngay dem ba deux heures du matin it la gën mooy bu julli bul julli timis bàyyil ba yegg Muzdalifa boole timis ak géey doog koo julli mi ngi noonu amma bu dee ne da ngay gis la nga xam ne moom mooy ñeent juróomeelu sunna ba mooy al wuquf mustaqbil al qibla zakiran daiyan inda al mashari al haram te mooy jabalu qaz mi ngi noonu mooy sopp nañu soo fanaani muzdalifa ba julli fajar ba pare nga daal di taxaw di ñaan di ñaan di ñaan ba jant bay waaje fenk nga doog a wàcc dem jëm ci jamaraat yi mooy xattal isfaar mooy jant ba ma ngay leer di waaj a fenc isfaarul bayyin leer gu tar fekk jant bi fenkagul te li lépp ci tegtali jaami yàlla la arafat da ngay taxaw ba jant bi so bu dee musdalifa da ngay taxaw ba jant bi waaj a fenk mi ngi noonu gis ngeen juróom benneel bi at tartibu bayna rami jama rami jamra al aqaba wal nahr wal xalq wal tawaaf ziyaara ca mooy al ifaada mooy juróom benneelu sunna yi nekk ca Arafat mooy bisu juróom-ñeenteel ba nga jëkk a def lii sànni jamra dem wat rey sa ba hadiyu loolu sax léegi amatul léegi daanaka fañ koy rey doo ko gis sax ak la nga xam ne nii moom mooy watu ak dem wër kaaba ga li ñuy tuddee tawaaful ifaada tegale ñeenti yi sunna la waaye bu doon da ngaa jëkk a dem def wër kaaba ga doog a ñëw sànni jamra bu doon da ngaa watu doog a sànni jamra bu doon ilaaxiri yii luñ ci jëkk a def bisu juróom-ñeenteel ba taxul at gi am yàqu bisu fukkeel ba taxul at gi yàqu waaye nag la gën mooy bisu fukkeel ba nga tegeloo ko nii sànnil jamra dem watu ji dem wër kaaba ga su mënee nekk wër kaaba googu it wax nañ la du force ci nga def ko ci bisu fukkeel bi te léeg-léeg def ko fa day jafe lool lool lool lool ñu ngi noonu loolu moom bu la neexoon sax bàyyi ba ba nga jógee mino nga doog a dem doog koo def donte ne ngëneel nag mooy nga def ko ci bisu fukkeel ba boo dee jafewul ci yow la ca mujjoon adaau tawaafu ziyaara fi yowmi nahr qabla al ghurub mooy lii di tawaafu ziyaara boobu nga xam ne moom la tuddee tawaaful ifaada nga xam ne moom daa mi ngi noonu bokk ci ponk yi mooy nga def ko avant jant bi di so loolu mooy la nga xam ne moo ca gën ci sunna ya bu dul loolee yit yàqalu la sa aj dara mi ko kon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain la nga xam ne mooy cosaanu ay miil dafa nekk ay nattuwaay loo xamee ne nii dañ koy mandargaal mu nekk ay poto waaye léegi dañ ko def ay lampe dafa am ay lampe yu nekk ci kaw yoo xam ne ni booy dem boo yegsee ci verte bi ngay daw boo yegsee beneen verte bi nga daal di taxaw loolu moom mooy mbir bi donte ne bu dee mille ci arab nattukaay la am na lu ñuy dugal ci butéelu tusngal ñu koy tudde mille bu dee ne ci yeneen nattuwaay yét mën na nekk luy tubaab yi tudde ay maa yi wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw waaw façon lu ahlu zikri moom ñoo ñuy ñëw fa mujj waaw moom léegi kon mu ne léegi fat foofu yëpp dañ ko wertal lépp kon loolu moom moo gën a neex xam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam tawaafu ziyaara mooy heure boo xamee ne ni dañoo jógee arafat war a ñëw ci kaaba gi loolu bokk ponk ci ponk aj gi dañ ko tuddee tawaafu ziyaara ndax su booba armal bi jeex na képp koo xamee ne ni jóge na arafat ba watu ba sànni jamra li ko aj màkka tere woon yépp dagan na ci moom léegi day solaat ay yéreem léegi na dong lañ ko tere mooy ànd ak soxnaam waaye bu dul loolu dañ koy lépp dagan nañ ko donc ñooñu buñ fa dajee ak ñi aj dafa mel ne ajuñu seen yére normal la ñuy sol jóge nañu arafaat la gënoon a métti ci aj gi def nañ ko léegi loolu moo tax ñu tudde ko tawaafu ziyaara mooy bañ jógee arafaat di wàcc amma li suñu borom di wax nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia naam moo tax mu ne wa rafana baaduhum fawqa baadin darajat li yettaxisa baaduhum baadan suxriya yàlla subhanahu wa taala ci ngëneel yi mu def mooy mu jox ñi alal jox ñi doole su ko defee borom alal yi di jëfandikoo borom doole yi loolu tax àdduna dox ndax bu doon yàlla daa joxoon ñëpp alal kon kuy débouché douche yi kuy tabax kër yi kuy nangam nangam looloo tax ñi am di jëfandikoo ñi néew doole doonte ne ne dañuy buñ ko delloo ci dëgg dëgg dëgg àdduna ku nekk da ngay jëfandikoo sa morom parce que tey jii da ngay gis na yow yaa ngi tëdd sa lal di nelaw am na commerçant boo xam ne moom daa tëj këram un mois ma nga Dubaï di dajale conteneur ak këram ak këram mi ngi noonu am koo xam ne ma ngay dem dajale di ceeb kay dajale ji déwlin ñooñu yow la ñuy liggéeyal mi ngi noonu gaa yi nekk ca bata pêche yow la ñuy liggéeyal waaye la ca gën a feeñ mooy yàlla subhanahu wa taala moo yëkkati daraja ci kaw daraja ñii ñii di jël ñii di leen def di leen liggéeyloo kiy liggéeyloo firiwul ne daa gën ka muy liggéeylool ndax bu doon looloo julit du liggéeyal yéeféer te dagan ne julit nga dem yéeféer nekk sa patron loolu kon pour àdduna dox rek la su ko defee ku nekk jéem a jaamu yàlla ci ki ngay liggéeyal nga seet yàlla ci liggéey bi ka ngay liggéeyloo nga seet yàlla ci fayam loolu daal mooy nattu ba ci yàlla nattoo wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam naam waaw waaw ala kulli xaal yéene bi ngay yéene bi ngay dem arafat yaa ngi yéene na arafat nga jëm ala chaque ne mënoo jógee say hôtel ak def yëpp fanaan mina boo jógee kon yaa ngi yéene na arafat nga jëm loolu kon dara nekku ci dafa fekk kay la nga xame ni ni mooy fala mbir mi di commencé ay fa yonent bi alayhi salatu wasalam commencé woon taxaw dafa arafat mooy gannaaw tisbaar ndax bi mu ñëwee dafa wàcc namira fa la julee tisbaar ak takusaan bi mu julee tisbaar ak takusaan la wàcc nag ci place bi nga xam ne moom la ñuy tuddee arafat ca tisbaar ja su ko defee kooku aajowul sellal yéene nag ñàkk sellal yéene maadaama ba ngay jóge mina yow yaa ngi yéenoon dem arafat boo fa yeggee yegg nga arafat mi ngi mel ne rek ki yéene damay wor weeru koor ça ne veut pas dire que ne guddi gu nekk day yéene damay woor suba maadaama yéene nga damay woor weeru koor da ngay gis ne weeru koor bi yëpp day duggaale ci loolu kon it ki jóge Mina jëm Arafat heure bu demee Arafat yegg fa toog fa ba jant bi jant bi so du ñaari yéene yu muy yu muy tegale ci loolu ñaareel bi mu nga doon wax fii ah déedéet déedéet déedéet pour ànd ak imam bi ci Arafat déedéet loolu mi ngi amoon jamono bi bi yonent bi alayhi salaam di dund la mënoon a nekk mais jamono beegi kan moo mën a xalaat deux millions et quelque mën a dugg ci masjidu Namira loolu loolu mënta nekk masjid bi ak lu mu mën a jël ak la ko wër lépp même boo ko xoolee ci télévision bi da ngay gis ne à peu près le tiers peut-être wala moitié tiers bi ñoom ñooy mën a ànd ak imam bi foofu su ko defee kon charte bi du ànd ak imam nit ñi dañuy tasaaro ci biir Arafat ku nekk fa nga nekk ngay julli sa tisbaar ak sa takkusaan boole ko su dee ne nag nekk ngeen mbooloo ngeen ànd def ko loolu mooy la nga xam ne mooy la gën mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam aleykum salaam naam naam ala kulli xaal la nga xam ne mooy jamaraat yi bu njëkk yomboon na Muzdalifa boo demee nga for ko waaye léeg-léeg sax nga dem mu am jafe-jafe pour nga mën a am xeer yooyu yëpp donc xeer yooyu moom foo ko fore même bu doon da nga koo jël fore Sénégal def ko sa biteel sax yépp moo yem te xeer yi bis bu njëkk bi juróom-ñaari xeer ngay sànni ñaareelu bis ba 21 ñetteelu bis ba 21 loolu boo ko xoolee di nekk 49 xeer 49 xeer ki aj màkk moom lay at à moins que nga def fa 3 jours boo fa defee 3 jours moom da nga dem ba 70 xeer waaye bu dee ne yow ñetti fan rek ngay def mooy bisu bu njëkk bi jamratul aqaba ngay dem sànni ko juróom-ñaari xeer bisu ñaareel ba nga am 21 beneen ñetteel ba nga am 21 loolu nag pour nga am 49 xeer yooyu yëpp nga for ko léeg-léeg mu nekk ay jafe-jafe kon foo ko mën a fore baax na boo ko gisee mën nga ko for Muzdalifa loolu amul benn problème wallahu subhanahu wa taala alam ah mu ne ah waaw ala ku waaw ala kulli xaal mi ngi dépendre léeg-léeg ci place bi nga dal ndax xam ngeen Muzdalifa it lu yaatu la donc mu dépend ci place bi nga dal am na ñoo xam ne place yi ñuy tombee dal for xeer yi du fa jafe il faut nga jël ay xeer yu mag di ko toj loolu loolu gis nañ ko falilahi alhamdu bon dawla saoudia ñi ngi def ay jéego yu rëy waaye nag ay millions la ñu neexul satisfaire waaye fi mu ne am nañu usine boo xam ne ay xeer rek lay defar ay mbuusu xeer yoo xam ne daani ko lu jege un million de paquets dañ koy def di ko distribuer gars yi ku ñëw ñu dox la xeer ya nga xam ne moom nga war a sànni xam naa du matala ñëpp waaye ñi ëpp ci ujaat yi soxlaatuñu léegi pour ay xeer mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw kon yaakaar naa mbokk mën nañ doy loo loolu yal nañu yàlla yóbbu aji makka ci suñuy jëmm bu jëmm yi dem yi yàlla na xol yépp aji ji makka ngir mu bindal ñu yool ba wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain